léegi lu mu la bëgg wax daal mooy bi déclaration de patrimoine jotee bi ñu ko waree def def naa ko bi ma nekkee ministre des finances bi ma génnee ci gouvernement def naa ko bi ñu ma nommé premier ministre defaat naa ko fi mu nekk nii j'ai trois mois pour faire une déclaration boo génnee ci premier ministre mais je pense que d'ici trois mois je vais être élu président de la République et je ferai ma déclaration de patrimoine en tant que président de la République